thank you a 5 ans, sûrement elle avait subi un traumatisme sur cette dent-là, c'est pourquoi a changé de teinte, c'est parce que la dent elle est nécrosée. Et elle a changé de teinte, mais quand même. Ici, ça ne s'enfle pas, ici, là, là, ça sent. Ici, ça n'est jamais gonflé, enflé comme ça. Si je touche ici, ça fait mal. Si j'appuie ici, ça fait mal. Non Ok. Là Non, ça va. Ok. maintenant je vais faire comme si non ici ça fait mal ça fait mal bon, c'est bon, elle, a, elle a 6 ans, c'est des dents qui sont du côté, c'est des dents qui Et j'ai vu qu'elle avait commencé un traitement sur ces dents-là. Elle avait déjà vu un dentiste par rapport à ces dents qui a fait un traitement sous la dent, ouais. Euh, on a ouvert la dent en bas pour la laisser ouverte pour que ça ne s'enfle pas ici. Donc euh, c'est une dent qu'on qu va faire ce qu'on appelle un suivi clinique, c'est-à-dire qu'on observer les dents pour voir s'il pas de douleur, s'il y Donc euh, moom en fait euh, moo ngi bu baax gémmiñ bi set na euh, day gën a renforcer brossage bi c'est bien donc ba ñu ñaari ba ñu ñu gis mu décoloré wu ni c'est-à-dire que ba ñu dafa si gaañoon soit loolu c'est très fréquent xale yi ñuy am ay traumatisme di mbëkku wala ñuy daw daanu ak yooyu parce que tànk yi dëgër ko mais d'habitude xale yi contrairement ak mag ñi ñoom dañuy teel a cicatriser wu donc boo xoolee bëñ bi di nga gis ni jotoon na jaar ci dentiste ba mu defal ko benn soin euh, pour conserver dent bi le temps que dent bi di wadd parce que dent bi dafay day fokk en en moyenne entre six ans et sept ans elle elle a cinq ans donc euh, dafay fokk appui dent permanente bi da koy remplacer mooy dent adulte bi. da koy remplacer entre six ans et sept ans donc euh, sinon y a y a pas autre chose en bouche y a rien à faire y a pas de caries les dents sont propres macha allah Khadija ay continuer di brosse waat na dégg bu baax d'accord gémmiñ gi set na donc ba ñuy après dafay dafay wadd hmm? normalement en moyenne d'ici un an rek mu wadd après yeneen yi sax yu rafet dégg yoo xamante ne day weex d'accord ok c'est bon. téléspectateur Leral TV ñu ngi leen di dalal fii ci cabinet wu docteur Diouf muy chirurgien dentiste fii ci district bu Guédiawaye docteur maa ngi lay nuyu. maa mhm. tey nag docteur ñu ngi fas yéene waxtaan ak yow feebar boo xamante ni problème de santé publique la. muy carie dentaire ndaw ñi tey moom moo ñu gën a soxal ñu buggoon xam docteur lan moom mooy carie dentaire. waaw carie dentaire ab maladie la maladie infectieuse la boo xamante ne day attaqué bëñ yi. Mhm. et euh, mu nekk feebar boo xamante ne ñëpp lay dal. Mhm. amul góor amul mag amul xale amul góor amul jigéen amul mag amul xale donc euh, mhm. ñëpp lay dal et puis lay attaqué day def euh, ay genre cavité si bëñ yi. di lekk ba ñi di lekk ba ñi ba buñ ko fajul mën na mën na dem ba romb ba ñi nag jàll feneen c'est des tissus yi nga xamante ne ñoo wër ba ñi muy gencive beeg semence beeg euh, os alvéolaire yeeg et puis euh, ay complication loolu bu bëri si àdduna bi est-ce mën nañ xam carie dentaire à partir de quel âge euh, la ko xale mën a am mën nañ wax ne à partir de six mois bu xale bi commencé saxal mun na am kari mhm. parce que ba yi lay attaqué. Mhm. Eh, te du xaar saa bu bëñ yi saxee rek si gémmiñ bi. mun mhm. nañ jàpp ne bëñ ñuy mun na commencé am kari donc euh, voilà. Euh, dans ce cas bu xale bi bu xasee am kari naka lañ koy fajee yéen docteurs yi naka ngeen ci arto pour faj kari bi. waaw bu amee kari moom lu ci gën rek lu mu gën a gaaw mu dem euh, seeti ab euh, dentiste ab chirurgien dentiste. Mhm. ce qui fait que dina am ay jumtukaay si cabinet yi koy mën a faje mhm. waaw ba nga xamante ne du ko indil leneen jafe-jafe. Mhm. parce que lu gën mooy bëñ bi bu amee kari rek ñu teel ko jóg. mun ko faj parce que bu ko fa bàyyee bu yàggee rek mën na dem ba kenn doon dootu ko mën a fajaati dañ koy mujjee obligé dindi ko te lu gën si bañu xale lu gën mooy xale ba ñuy des si si gémmañ bi foqal seen bopp heure seen heure foq jot ba ñuy seen bopp naturellement loolu loolu loolu moo gën ah, euh, brossage yi des fois dañu am ay idées reçues yoo xam ne dañ la naan xale bi jarul muy brosu muy teel a brosu hmm. puisque bëñ dent de lait yi moom mooy première dent yi di apparaître ci xale bi mm-hmm. day wadd tôt ou day wodd donc jarul ñuy accentuer trop ci bi ko dentaire docteur yow naka nga gisee loolu waaw loolu nag erreur bu mag a mag la si si euh, si yaay yi surtout laa wax sax si croyance boobu erreur bu mag a mag la. Mhm. parce que ba ñuy ba ñuy bu xasee ba sax ba ñuy dafa am solo. Mhm. ba ñuy dafa am rôle def si si croissance xale bi màggaayu xale bi développement xale bi. Mhm. donc ba ñuy bu xasee ba sax <clears throat> dañ ko war di toppatoo. dañ ko war di toppatoo bàyyil ko si gémmiñ bi ba seen heure fooq parce que ba ñu nekk dafa am waxtu bu mu war a fooq muy incisive muy canine de lait muy molaire de lait yi ba nekk dafa war a fooq. dafa mu war a fooqee bu liquider ba ñi nga xam dañoo war a sax pour ñu mën a aligné wu normalement si si si chantier bi ba ñu mën a aligné wu mën a am position bu rafet voilà et puis bëñ yooyu day permettre aussi xale bi di lekk parce que xale bi à partir d'un certain âge alimentation bi day changer mm-hmm. donc day jógee si aliment liquide dem si aliment semi liquide après dem si aliment solide mm-hmm. donc bu commencé lekk aliment solide yi comme ay ceeb wala leneen ak leneen donc day soxla te yeneen ba ñu saxagul donc day am problème lekk loolu tamit xale bi buy dul lekk normalement mën na ko indil ay malnutrition ak yeneen feebar. leneen ak leneen et en même temps aussi ba ñëwee dañuy jouer rôle bu am solo pour wax parce que xale bi buy jàng wax pour prononcer yenn son yi yenn mots yi bëñ yi da see am rôle bu am solo bu muy jouer làmmeñ bi da ciy appuyé wu d'habitude pour prononcer yenn son yi boo xoolee sax mag bu amul bëñ sax parfois bu mën a wax. du mën a prononcer yenn son yi donc bu fa voilà day am problème mu prononcer yenn son yi du leer ce qui fait ñi dañoo am rôle bu am solo pour lekk bi pour wax bi ak leneen ak leneen voilà dañu faral di gis euh, xale bu commencé am dent de lait rek ñu gis ba ñëpp daggandoo am yenn parents yoo xam ne dañ naan dafa judduwaale noonu est-ce que xale dina judduwaale ak yi Euh, waaw xale nag du judduwaale kari mhm. bëñ yi buy sax day sax euh, normalement mhm. sans kari si gémmiñ bi mhm. mais problème bi mooy li ñuy constaté su fekkee ne xale bi bëñ yi dafa sa commencé sax à partir de six mois sept mois huit mois te xale bi duñ koy raxasal gémmiñ bi ba pare nag xale yi dàmm di fanaanoog ay biberon wala di fanaanoog di nàmp wenn donc euh, wenn bi meew bi dafa am d'accord bu fa fekkee bëñ yi mhm. bëñ yooyu day teel a def kari te kari boobu nag mooy lekk bëñ yi dagg bëñ yi hmm. moo tax yaay parfois dañuy am impression que bëñ yi noonu la saxe fekk du saxe noonu bëñ bu muy benn feebar en général benn kari noonu lay saxee parce que xale euh, yaay yi comprendre xale heure boobu war fekk nga commencé raxas gémmiñ parce que hmm. raxas gémmiñ bi warul tàmbali rek si bu xale bi amee deux ans trois ans quatre ans hmm. raxas gémmiñ bu lekkee dafa am ak ay moyens yi mën a raxase gémmuñu xale bi. Mhm. pour mu bañ a am ay. carrément comme yan genre moyen pour. waaw mën nañ euh, comme par exemple euh, comme ni ko xamee entre zéro mois xale bi weer rek lay namp. Mhm. loolu am amul problème. Mhm. mais à de six mois. xale bi day commencer di lekk yeneen ñam. yeneen ñam ay ñam yu ay koy ay liquide wala semi liquide. léegi nag xale bi boobu du commencer gum brosu. mais saa bu lekkee ba pare. yaay ji mën na jël compresse tooyal ko ndox. loqatil ko gémmañ bi. loqatil ko gencive bi loqatil ko làmmeñ bi. loqatil ko aussi euh, joue bi surtout face interne bu joue wax. ñu loqatil ko ba mu set. loolu day permettre euh, déjà gémmañu xale bi day nekk en bonne santé day set. ba pare du am ay mauvaise haleine parce que xale bi bu dul nettoyer gémmañ bi moom mooy waral ngay gis parfois xale bi du am ay mauvaise haleine. wala am ay dépôts blanchâtres ci làmmeñ bi. Mhm. te yooyu noonu mooy indi mauvaise haleine yeeg yooyu. donc à partir de deux ans nag. boobu dina mën a am brosse ak pâte dentifrice euh, yi nga xamante ne ñoo ngi koy jaay si pharmacie. yoo xamante ne c' est à base de fluor la. et c' est très efficace. Euh, mën na commencer euh, di brosse. Euh, léegi brossage bi nan la ci parent bi war a gunge xale bi. waaw mooy autonome. très bien muy question bu am solo. Mhm. comme ni ñu ko waxee à de deux ans xale bi bu commencé brosse. yaay ji day fexe moom buy brosse. Mhm. mu woo xale bi. ñoom ñaa ñu brosondoo parce que d'habitude xale bi lu yaay ji def bu koy gis rek euh, day facile pour moom mu mu koy toppandoo. Mm-hmm. donc yaay ji bu koy day def euh, buy brosse mu jëlaale xale bi. Mm-hmm. wutal ko patam ak brosam brosse ko ba pare. Mm-hmm. yaay ji moo koy jël brossal ko euh, gémmiñ bi yëpp ak ñaar arkaat yi brosse ci kaw ba pare brosse ci suuf ba pare. brossal ko làmmiñ bi bu ko brossé ba pare nag après jox ko xale bi brosse boppam. comme ça mu jàngal ko si noonu la koy jàngalee nu muy nu muy broso voilà. des fois aussi ñu gis ni suñu doom yi dañu lay mën nañ foo daanu mm. est-ce que suñu daanoo par exemple des fois ñu gaañu ci gémmiñ ci bañ suñu mm. mm. est-ce que gaañu gaañu yooyu mën na andi impact ci seen daaw futur yi. waaw mun na andi impact te euh, loolu ngay wax noonu dafa dafa fréquent trop si xale yi. Mhm. parce que xale moom euh, tànk yi dëgëragul donc bi màgg. Mhm. ak jeu yi ñuy joué si kër yeeg yooyu. Mhm. voilà parfois c' est très fréquent ñuy ñuy daanu di gaañu si kër yi si école yi même. donc euh, mais loolu saa bu dalee xale bi. li ñuy conseil parents yi mooy que. bu ñu jël xale bi rek daanu na gaañu na jooy na noppi na après jeex na ñu téye xale bi. des fois nga gis même ñenn ñoo xam ne dañu jël ndox def ci ak kii xorom au salé wala ñuy bicarbonate <laughs> jox xale bi mu galgariser wu rek ñu pare si c'est c'est yooyu ay ay ay maam yi ñoo ko doon def mhm. euh, mais lu gën mooy que bu xale bi gaañoo mhm. même bu amatul douleur wala bu gaañoo ñu defal ko ndox ak xorom ba nàcc nàcc bi arrêté na ak yooyu mhm. nañ jël xale bi yóbbu ko hôpital ce que parce que parfois traumatisme yooyu day indi ay ay ay yoo xamante ni euh, après la la lañ koy baaraay di gis. voilà mais bu ñu xasee ba ñëw si dentiste bi dentiste bi dina mën a évaluer xool ba xam. Mhm. gaañu gaañu bi est-ce que du affecté ah dent bi nga bi est-ce que yàqul mhm. dent dent de lait nga xamante ne saxagul sax si gémmiñ mhm. parce que parfois traumatisme yooyu mun na indi infection si racine dent de lait nga xamante ne après day wàll sax germe dentaire bi nga xamante moo war a sax après bu dent adulte voilà te bu ko bu ko wàllee mun na indi bëñ boobu sax sax parfois mun na ko indi sax mu faxee sax bañ a sax mm-hmm. parce que day day day indi ay problème ci développement bëñ dent dent dent adulte bi mm-hmm. wala parfois dent bi buy sax sax day def benn genre malposition si si si si gencive bi si arcade bi mm-hmm. ce qui fait que daal euh, xale bi bu gaañoo bu daanoo nañ ko yóbbu si médecin bi yóbbu ko si dentiste bi mu évaluer daanu xale bi kat est-ce que amul benn impact si si yaramu xale bi voilà. est-ce bi war na dem périodiquement di di rendre visite dentiste bi sans pour autant mu am ay douleur wala dara. waaw muy lu am solo ñu nag. Euh, ak ak bu amee ñaata yoon ci ci at bi. waaw waaw loolu moom muy xale bi muy mag bi. dafa am mhm. solo. Mhm. waaw di dem de temps en temps di xool sa yaram. Mhm. voilà donc bu dee xale bi. yaay ji déjà si biir kër gi yaay ji mën na de temps en temps di yëndu gémmuñu xale bi. waaw di yëndu gémmuñu xale bi. Euh, bu ci gisee parfois lu ci bokkul bu ci gisee dara lu tax si ba ñu loo xamante ne gis na ni bu broso du deñ mhm. mun na ko yóbbu d'emblée mu xooli dentiste bi mais néanmoins mhm. xale bi buy màgg mun na di def euh, chaque six mois mhm. voilà mu def li ñuy wax visite systématique ñaari yoon si at bi mu dem gis euh, dentiste bi voilà dem fay consultation bi toog dentiste bi la moo la indi woon ko damaa ñëw pour xool sama gémmañ dentiste bi xool na ay feebar yu bari bari yu bari yu war a mën si gémmañ bi dentiste bi dina ko mën a gis mën ko jox ay conseils su amee dara luy commencé luy feebar mun na ko teel a faj. ce qui mooy permettre xale bi mën a màgg ak ay bëñam sans ñàkk ay bëñam. d'accord ce que bu fekkente ni par exemple ñun ñoo ngi xale bi mu ngi brosso ci euh, pâte dentifrice bu adéquate est-ce que mën na jël ay aliments wala ay médicament complémentaires yoo xam ne c'est à base de fluor. ñu daan jël il y a vingt cinq ans. non non loolu moom jaru ko. xale bi de brosse nu mu waree rek. Mm-hmm. minimum ñaari yoon par bés. Mm-hmm. Euh, ak pâte dentifrice au fluor yu mu jëndee pharmacie. Mm-hmm. Euh, di changer régulièrement brossage bi. di def technique de brossage bu baax. loolu du ko du ko jar vraiment donc euh, jarul muy si ñu gis gémmiñu xale bi commencé na am ay tarte est-ce que yow parent bi mën nga dindi tarte bi nekk si gémmiñu xale bi. tarte yi nag parent yi lu ñu ak xale bi mooy prévenir ko. mën nañ ko prévenir ak brossage bu baax. Mhm. voilà mais tarte bu xasee ba ñëw ba installé wu parfois c' est difficile nga nga dindi ko. lu ci gën mooy euh, mu dem seeti dentiste. voilà bu seetee jee dentiste bi dentiste bi dina yor ay moyens yoo xamante ni dina mën a ko nettoyer gémmiñ bi. Mhm. voilà ba dindi tarte yooyu yoon. en fait hygiène bi ko dentaire xale bi ban impact la mën a am ci xale bi nga xamante ni par exemple mi ngi dem école. Hmm, waaw. lu mu mën a am bëri na luñ ci hygiène ko dentaire lu mu mën a am bëri na impact si xale bi ci mën a wax parce que gis xale yoo xamante ni dañu am sax complexe wax ñu naan mm. ñii duñu wax duñu wax mm. fekk na dañu am jàngoro boo xam ne mm. peut-être dañ ko parents yi dañ ko négligé bien sûr bien sûr <laughs> c'est vrai euh, déjà euh, comme ni xale parfois dinañ nekk si école du foo ak moromam wala du exprimer wu moromam yi comme nu mu waree mhm. lu koy war a parfois am na lu koy lu koy boo ko gisee si xale rek mhm. boo ko waxtaanee ak moom boo ko jegee rek di nga gis parfois am na lu koy lu mhm. pour lenn ñu ñu koy wax halitose bu am mauvaise haleine parfois dina koy tere foo ak dina koy tere wax ak ay moromam di nga gis euh, si classe bi du yëkkati loxoom du wax parce que jàpp na bu waxee euh, gémmiñam day am xet ak yooyu donc da koy def benn du war a mun a foo ak moromam lu ñu war a fooyee euh, voilà donc mauvaise alimentation d'habitude lu koy indi mooy euh, mauvaise hygiène bucco-dentaire voilà moo koy indi. mauvaise hygiène boobu est que euh, yenn chirurgien dentiste yi est-ce que mën ngeen mën ngeen koo faj. waaw mauvaise haleine boobu dañ koy faj. Mhm. déjà bu ñëwee dentiste bi dina xool exactement mauvaise haleine bi lan mooy cause bi. Mhm. parce que euh, mauvaise haleine boo gis rek am na cause. donc voilà am na cause su fekkee ne nag causes yi nag mën na nekk ñett mbir. Mm-hmm. mën na nekk ñetti mbir mën na nekk cause boo xamante ne. Mm-hmm. day jógee si bakkan bi. Mm-hmm. comme euh, kuy am ay sinusite ak yooyu. Hmm, sinusite euh, moo ngi féete si bakkan yi loolu bu jógee si bakkan bi. donc su boobaa dentiste bi da koy référé si médecin bi mu dem faj wala parfois mën na jóge ci biir bi. maintenant bu jugee nag si gémmañ bi dentiste bi dina ko mën a xam ne kii mauvaise haleine bi si gémmañ bi la jóge donc day xool gémmañ bi évaluer lépp li nga xamante ne mën na indi mauvaise haleine su fekkee ne dafa am ay caries yoo xamante ne fajo xam nga caries yi ay pax lay doon ah ay cavité lay doon si bëñ bi parfois day denc lekk yi boo broso parfois sax mun na bañ a denc donc caries yi nekk si gémmiñ bi yëpp dentiste bi da faj su fekkee ne dafa am ay tarte dentiste bi da koy day dindi sa tarte yi su fekkee ne dafa am ay ay yoo xam ne da kaa fajoon mu xaw a yàqu mm-hmm. ah comme ça mu defoon ay amalgame yooyu ay plombage ba ñuy plomb yi xaw a yàqu mm-hmm. donc da koy da koy yi lépp daal loo xamante ne mën na nekk cavité boo xamante ne day denc ci ñam day denc salté. Mhm. dañ koy defar ba mu set donc euh, après gémmiñ bi. d'accord docteur ñu gis question ay ay ay conseils a jox. Mhm. yoo xamante ne mauvaise mhm. ñu gis euh, temps yi benn phénomène boo xam ne c'est récurrent muy blanchiment dentaire est-ce que blanchiment dentaire war nañ ko defaral xale. Euh, non non blanchiment dentaire parce que déjà xale émail bi dafay faible parce que dafay nekk si période de développement émail bi mhm. donc euh, moom jarul muy def ay c'est pas conseillé xale daal moom lu ñu koy conseillé mooy nay brosse gémmiñ bi nekk set rek mhm. am solo quoi jeex na docteur euh, l'émission tire à sa fin ñu bëggoon xam lan mooy sa dernier conseil loon ngay jox parents yi di ko dénk xale yi aussi donc euh, lu ñu mën a jox comme conseil parents yi mooy que mhm. xale bi surtout bu juddoo rek war na am commencé am hygiène bi ko daan te war nañ ko raxasal gémmiñ bi mhm. mu màggaale mu noonu tàmm ko bu amee deux ans nag ñu mhm. commencé kaa wutal patak brosse muy muy brosse ba pare nag euh, ñuy éviter surtout xale bi bu amee dara si gémmiñ bi mhm. ñu koy jox ay paracétamol kër ga rek toog bañ kaa bañ kaa yóbbu hôpital voilà bàyyi prémédication yi di jox automédication yi xale bu bu amee dara si gémmiñ bi rek ñu jox garab mu toog xaar mhm. di xaar mhm. lu muy gën a xaar muy gën a compliqué si moom mhm. lu muy gën a xaar faj bi di gën a compliqué parfois sax di gën a métti te dafa baax xale nga tel ko miinal euh, mu xam médecin xam dentiste day tax du ragal soins yi muy jël foofu voilà donc euh, ñu teel xale yi lépp lu ñu gis lu leen jaaxal rek ñu teel a dem si euh, cabinet dentaire yi teel ko faj voilà et puis bàyyi aussi pâte dentifrice yi ñu jënd si marché mm-hmm. yeeg si si boutique yi parce que kenn xamul lan lañ si defaree mm-hmm. pâte dentifrice yi dañ koy jëndee si pharmacie mm-hmm. brosse à yi dañ koy jëndee si pharmacie euh, lekk yi a éviter. lekk yi aussi voilà grignotage bi dafa waaw xale yi moom dañuy grignoter surtout que du ñu yendu si kër yi parfois école yeeg goûter yeeg yooyu donc ñu gën cee bàyyi xel parce que grignotage bi du si gémmiñ bi rek la yem mais si euh, si santé xale bi sur le plan général yëpp da si da si impacté voilà parce que xale bi buy lekk ba pare boole ci grignotage bi surtout d'habitude grignotage yi ay sucreries lay doon mhm. donc buñ ko mënee wàññi parce que parfois xam naa pour éviter loo ko xale yi arrêté loo ko xale yi ko mën a wàññi bu baax baax a baax voilà surtout nag aussi ñu gën a suivre brossage dernier brossage bi guddi gi mhm. euh, brosse mooy brossage bu gën a solo pour xale bi voilà mu tëdd te brosu voilà bu reeree rek bu lekkatul dara rek na brosu voilà mu tëdd ok je vous magazine ma santé ma priorité ñu leen di jox euh, dig daje ba beneen yoon incha allah.